mbind yonent yi benn ci turu almasi bi ñu ko tudde moo di loxob aji sax ji ci dëgg kéemaani yéesu yi wone woon nañu ne mooy loxob yàlla aji sax ji ci kaw suuf laal loxoom kese walla wax genn kàddu képp te jarag yeeg ñi wopp daldi wér fa saasa mbooloo yu takkoo daan ñëw fi moom indaale ay lompoñ ay gumba ñu làggi ay lu ak yeneen xeeti wopp yu bare ñu teg leen ci wetu yéesu te mu wéral leen waxi yonent yaa ngi doon ame ni ñu ko yéenee woon kumba yaa ngi gis lafañ yi dox gaana yi wér tëx yi dégg ñi dee di dekki te ñi woyoflu ñu ngi dégg xabaar bu baax bi amul woon jenn jàngoro ju yeesu tële woon a wéral genn gaana dafa ñëw bés ci yeesu sukk ci kanamam te ñaan ko ndimbal ne ko soo ko bëggee mën nga maa wéral bi mu waxee loolu yéesu yërëm ko tàllal loxoom laal ko naan bëgg naa ko wéral ca saasa ngaana ga daal ko dëddu mu wér bi jant sowee ñu indil yeesu ñi wopp ñépp ànd ak jàngoro yu wuute kenn ku nekk mu teg la loxo wéral la te it ay rab di génn ca nit ña te di yuuxu naan yaay doomu yàlla noonu mu gëdd leen te mayu leen ñu wax dara ndaxte xam nañu mooy almasi bi bëggul woon rab yi nekk ñi koy seedeel malaaka yu ban yooyu seede woon nañu sañsañam ak kàttanam gamu amoon ba muy sàkk asamaan ak suuf ci kàddoom ña nga doon lox ba ñuy fàttaliku bés ba mu leen dàqee asamaan léegi nag ci saa soosule yàllaa ngi woon ci kaw suuf ci melow nit ñu xam ne seen nguuru kilifa gi dina ni tasar buuru ndam bi moo tàbbi ci seenub dénd fépp fu yeesu dem dooley seytaane wàññiku fa fépp fu yéesu dem alkaandeg bàkkaar gafa nekkoon soppiku fa kéemaan ya dañu daan ànd ak waare nguuruk yàlla jege si na tuub seeni bàkkaar te gëm xabaar bu baax bi yéesu tànn na fukki góor ak ñaar ñu nekk ay àndandoom yuy jànge ci moom amoon na it jigéen ñu bare bare ñu ko daan topp dañu daan dimbale yéesu ak i taalibeem ci lekk ak naan ci ñi ko gëmoon ñoom wooteb yéesu leeroon na te jafewul topp ma waaye am na njëg gu jafe gu ci laxasu ku ma gënalul sa ndey walla sa baay yeeyoo ma ku ma gënalul sa doom ju góor wala ju jigéen yeeyoo wuloo ndegam taalibeem ya amoon na cay mool yéesu dafa daan farala yendu ca tefesu géeju galile ga nit ña daan jóge fu nekk di ko fa fekk yéesu tàmbali leen jàngal ca tefesu géej ga mbooloo mu bare dajaloo si ba tax mu yéeg ci gaal dugg ca dex ga mbooloo mépp taxaw ca tefes ga bés gannaaw ba mu yendoo jàngale yéesu ne taalibeem ya nanu jàll ca wet gale ndaxte ña nga woon ca biir gaal ga ba noppi ñu daldi dem bàyyi fa mboolo ma naka noona ngelaw lu mag daldi jóg duus yi sàng gaal gi ba muy bëgg a fees fekk yéesu tëdd di nelaw ci njegenaayu taatu gaal gi taalibe yi daldi ko yee naan kilifa gi ndax sunu bakkan soxalu la ci kaw loolu yéesu jóg daldi gëdd ngelaw li ne dex gi noppil te dal noonu ngelaw li dal ba lépp ne nemm yeesu ndax gëmaguleen ñu daldi ragal lool naan ci seen biir kii moo di kan ba ngelaw li ak dex gi sax di ko déggal ana kan mooy nit kii junni at lu ko jiitu yonent yàlla daawuda tontu woon na ci laaj boobu ci seenu njàqare yuuxu nañu jëme ci aji sax ji te mu tàqale leen ak seenu tiis dalal na sàmbaraax ma lépp dellu ne tekk duus ya daldi dal ba ne nemm kan moo mën a wax ak ngelaw leeg duusi géej gi te ñu ne tekk dal xanaa baat boobee nga xam ne moo leen sàkkoon ca njalbeen ga bés ñeenti góor dañu jàppoo nit ku làggi teg ko cib lal yóbbu ko ca kër ga yéesu nekkoon góor ña fexe xuus ca mbooloo ma ba àgg ca biir kër ga waaye jotewuñu ca néeg ba yéesu nekkoon ndax nit ñu bare noonu ñu yéeg ca kaw xadd ba tegg tiwil ya daldi yoor lal baat ka tëdd ca lal ba ca kanamu yeesu bi yeesu gisee ngëmu gaa yooyu mu ne ku làggi ka sama doom baal nañu la say bàkkaar yéesu xamoon na ne soxla bi gën a rëy bi waajooju amoon du woon jóg te doxaat waaye ñu jéggal ko ay bàkkaaram fekk ay xutbakat toog fa ñu di werante ci seen xel naan kii kan la ba sañ wax li ngi sosal yàlla ana ku mën a baale bàkkaar yi ku dul yàlla dong waaye yéesu yëg ci xelam li ñuy werante ci seen biir ne leen lu tax ngeen di werante nii ci seen xel lan moo gën a yomb ma wax ku làgg ki baal nañu say bàkkaar walla ma wax ko jógal jël sa basang te nga dox waaye xam leen ne doomu nit ki am na ci àddina sañ-sañu baale bàkkaar yi ci kaw loolu mu ne làgg ba maa ngi la koy sant jógal jël sa basan te nga ñibbi ca saasa mu jël basangam te génn fa kanam ñépp noonu ñépp waaru di màggal yàlla naan lu mel nii mësunu koo gis kilifa diine yooyu dañu gumba woon ndax seen diine ak seenug rëy seeni xalaat nii la deme woon yow Yeesu yaa ngi sosal yàlla te sax dangay saaga yàlla ndaxte yaa ngi naan mën ngaa baale ay bàkkaar fekk na yàlla rekk a ko mën wax nañu dëgg yàlla rekk mën a baale bàkkaar waaye dañu réeroon ci lu jëm ci kan moo yeesu ci yow kan moo yeesu ndax yaa ngi fàttaliku li turu yéesu di tekki mu ngi tekki boroom bi musal dafa amoon ab dëkk ca Palestine bu yéesu doon jàngale askan wa ko doon déglu jàpp lii cib tënk léegi déggal nanu ko sunu bopp te xam nanu ne dëgg-dëgg kii moo di musalkatu àddina si yeesu amoon na sañ-sañ ci càkkeef gépp moo na taxul woon muy wër naan jaamu leen ma maa di yàlla maa di yàlla dafa nekkoon di def rekk yëf yoo xam ne keneen mënu ko woon a def ko dul yàlla te mu bàyyi ku nekk tënkal boppam la mu gis te dégg ko yow soo sukkandikoo ci ñaari nettali yii kan ngay wax ne mooy yéesu dafa am bés yéesu dem ci dëkk bu ñuy wax naayin taalibeem yi ak mbooloo mu bare ànd ak moom bi muy agsi ca buntu dëkk ba fekk ñuy rob néew boo xam ne kenn rekk la woon ci ndeyam ji jëkkëram faatu woon mbooloo mu bare ca dëkk ba di gunge soxna sa bi ko boroom bi gisee mu daldi koy yërëm ne ko bul jooyati mu jege si laal jaat ga ñi ko jàppoo woon taxaw mu ne waxambaane wi jógal ndigal la noonu nit ka deewoon jóg toog tàmbalee wax yéesu delloo ko yaay ja ñëpp tiit bay màggal yàlla am beneen bés yeesu seeti ñaari mag yu jigéen yu nekkoon ci dëj di Marthe ak Mariama seen càmmiñ Lazare moo faatu woon ñeenti fan lu jiitu loolu Marthe ne Yeesu borom bi boo fi nekkoon de sama càmmiñ li du yeesu ne ko man maay ndekkite li maay dund gi ku ma gëm boo deewee it dinga nga dund rax ci dolli kuy dund te gëm ma doo dee mukk ndax gëm nga loolu mu tontu ko ne waaw borom bi gëm naa ne yaay almasi bi di doomu yàlla ji war a ñëw àddina yéesu dellu am na xar wu rëy daldi dem ca bàmmeel ba pax la mu ñu yatt ciw doj ube ko xeer yéesu ne dindi leen xeer wi màrt jigéenu ku dee ki ne ko borom bi dina xasaw xunn fii nu nekk ndaxte am na ci bàmmeel bi ñeenti fan yéesu ne ko ndax waxuma la ne boo gëmee dinga gis ndamu yàlla ñu daldi dindi xeer woote ak baat bu dëgër ne lasaar ñëwal ci biti néew bi daldi génn ñu gis càngaay li ñu takke woon tànk yi ak loxo yi ak kaala gi ñu muure woon kanam gi yéesu neleen leen ko bàyyi ko mu dem borom bi yéesu mooy kenn képp ci taarixu àddina sii ku mënoon a wax ne man maay ndekkite li ak dund gi ay jëfam ñoo doon wone ne la mu doon wax dëgg la